parce que ñun li muy am mi ngi fekk fee ñu toog si jaakoor café bi dañoo toog ba si kanam tuuti di waxtaan daal fi lañ nekkoon sax mais dañoo toog yàgg ramasse fekk ñu fi daa ñu def demi ñoo bëgg a xool gars yi dóor ñu bal ñun léegi après ñu dóor ñu bal ñun def demi daw am na oto yi taxawoon fii tamit ñoom dañ leen bal ak benn paa bu toog fi jaakoor xaal bi la après ñun tasaaroo gars dafa kaala kaala bu weex daal di taxaw fii si station bi fi la taxaw dóor oto bi fële léegi benn gaan moo ñëw ci pompe bi ko dóor ay jaase yooyu noonu waaw da ko doon tàpp ba pare ñun ñoo ko woo ñun ñoo dem fekk fa woo ko ñoo ba ñëw nii mais bi ñëw fekk gars yi tourné def demi tour jaar na joori bi topp na leen topp na leen jéem a xam fu ñu waaw mais bi leen topp dafa fekk tamit gars yi raw ko oto actuellement nag xaw L200 la mais oto bi xamuñu ñoo fi nekk non dañ ko yóbbu ñun biñ ko yóbbu ñun ñu taxaw fële jàkkaaroo mais ñi muñu ak ndax arme yor waaw da gaa bi doon diire fii la fekk nañu dem tëddi mais période bi fi daan nekk mën nañ fay nekk bu jógee fi mooy dara du fi traversé mais dañoo dem police yi tamit dem parce que action bi xew fi non ramasse fi daaxee moo fi jëlee ñun dañoo dem am naa gars waaw dañoo demoon ñor.